c'est-à-dire comme vous avez constaté le quartier est inondé quartier bi dafa am ndox ñoom seen néeg fu ñuy fanaan yëpp dafa am ndox léegi ñu dem lijjante benn machine machine baa ngi ne comme gis ngeen ko pour ngàcc ndox mi léegi fu ñu nekk di branché kii bi pour machine bi mun a évacuer ndox mi foofu la courant bi kii euh, courant bi laal leen ñoom ñaar yëpp ñu daanu fii kii daanu fii si keneen ki daanu si biir sama grande sœur moo moo jur étudiant bi sama grande sœur moo jur étudiant bi moo tudd Noha Diatta il a eu son master 1 l'année passée il prépare le master 2 cette le malheur est venu keneen kii mu ngi tudd Sadia Diatta Kenkayri lay jaay waaw kii 36 ans étudiant bi 32 ans ay mag lañu ay mag lañu. Mhm. avec beaucoup de surprise ce matin seulement ce matin l'étudiant bi ma wax sama jarbaat la ñëwoon na sama kër. nuyu ñu mu ne ma maa ngi réglé benn machine la pour ñu wàññi ndox bi puisque kër gi dafa inondé après mu continuer pour régler kii bi machine bi trente minutes après sama petit mon petit frère romb ma di daw mu ne ma am ay xale ñu. courant bi maa sëfale si yoon bi pour moi je n'ai pas pensé à ces gens-là après ma topp ñu ne ma noonu la du foofu sa kër mbokk yi la si laa jàddee ñoo fekk leen fii y presque personne dans la maison ñoom rek ñoo fi nekkoon tous les deux étaient presque innocents xamuñu li oui il y a le maire qui a envoyé son son Oui, il nous a dit que si nous avons des problèmes de logistique, demain, il peut nous envoyer un corbillard pour évacuer les corps. Les corps sont présentement à l'hôpital de Yeumbeul. Demain, il faut faire l'autopsie. Voilà, maintenant, il a pris en charge le déplacement, le corbillard pour évacuer, euh, amener le corps à c'est euh, qui voilà, au niveau de CTO. Hier seulement, tout le monde déplorait ce fait. Ce fait. notre mosquée, personne n'est pris là-bas. La, la, mosquée est inondée. Le président du conseil départemental de Kermassar, on l'a fait venir hier. Hier seulement, il était dans le quartier. Tout le quartier est inondé. Les maisons, les gens se dorment dans les chambres inondées. Mais on n'a pas eu de soutien jusqu'ici. Chaque année, c'est le même scénario qui, se répète. Ça fait trois ans que nous vivons la même chose. Mais malheureusement, nous sommes laissés à nous-mêmes. c'est très facile. La route là est canalisée. Il y a un canal qui passe même pas 100 mètres. C'est très facile à faire. Il faut mettre des canaux, des, des tuyaux. On évacue l'eau. Ou bien le pavage. C'est facile à faire s'il une négligence de, de, de la part de l'État. C'est un vide qu'on ne pourra jamais euh, combler parce que vraiment, c'est comme je viens de vous le dire, l'étudiant, il a eu son master 1 l'année passée, il prépare son master de l'avenir. il est parti comme ça à la fleur de l'âge il avait un bel avenir waaw. Ah hmm? géographie. ay doom bay lañu. ay doom bay lañu pour le vendeur le le quincailleur là son papa est là l' étudiant son papa est au village waaw et sa maman ñaamoon dàll bi ñoo na ñaamoon dàll bi ñoo na que nous avons vécu aujourd'hui comme événement, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Puisque deux corps dans une même maison, ce n'est pas des gosses, c'est des grands gaillards. L'autre a 30, 32 ans, l'autre 36 ans. Des gens qui sont en bonne voie pour la réussite. L'autre, c'est un vendeur de quincaillerie. Le Keneniki, c'est un, un étudiant qui avait son master l'année passée. Ils sont partis comme ça. Comment est C'est la maison qui était inondée. Ils ne pouvaient pas croiser les bras et attendre les autorités. Ils ont euh, réglé euh, dans le quartier euh, une pompe. C'est avec cette pompe-là que les, les riverains ont évacué leur kii là, leur maison. Eux aussi, ils ont voulu faire la même chose. Mais malheureusement, il y avait le courant. je ne sais pas comment ça s'est passé, si dans le branchement ou bien quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'ils euh, ont été électrocutés. Et les corps sont présentement à l'hôpital de Yembol. Oui. la police a exigé à ce qu'on fasse une autopsie. L'autopsie, ça sera pour demain, à l'hôpital Idrissa Pouy de Grayoff. Oui. Inch'Allah. Est-ce que euh, reçu, le soutien euh, Il n'y a que le maire de Kermassar Nord qui a envoyé son adjoint pour nous demander ce que nous comptons faire pour l'autopsie. Il, dit qu'il est prêt à nous soutenir pour le, le transport des, des, deux corps à l'hôpital. Voilà, uniquement. Mais le vide que ces deux, ces deux enfants ou ces deux sont laissés derrière aussi. Non, c'est déplorable, c'est déplorable, vraiment. On ne peut pas. Euh, c'est des vides qu'on ne pourra jamais combler. C'est des gosses qui sont appelés à euh, un bel avenir, mais malheureusement. C'est un manque de volonté. Il faut qu'on se dise la vérité. Le canal est là, il n'y a même vous avez vu la, la route, La, la, route est canalisée. Il suffit de mettre des, là, des, euh, euh, des, pavages ou bien quelque chose comme ça, on évacue l'eau. Ça fait trois ans que nous vivons la même, la même situation. Notre, mos notre mosquée est là, derrière nous. Ça fait trois ans qu'on prie pas. Euh, trois semaines qu'on prie pas. Quand il pleut, personne prie. La, la mosquée est inondée. Mais les autorités sont tous au courant. foofu ñu bàyyi leen représenté wax euh, maa ngi tudd El Hadj Yankuba Diatta dëkk ki gox bi waaw. ñii ay doom baay lañu seen papa waaw. ñi xale yi bàyyi lañu ki ñoom waaw. ah moom mooy mettit bu métti métti métti métti soo nekkul jullit da weddi. Congolais yi mënul am waaw eh, gëm suñu borom tax ñu gëm ko que suñu borom moo ko def waaw. ah xale yu am pas-pas la ñaar xale yi xale yi ñu am pas-pas la gis nga bâtiment bi bâtiment bi suñu ginnaaw nii benn xale bi moo ko liggéey keneen ki day daa daanu dooleem kenkaayri pour jàppale baayam bi xale quartier bi ko ci laaj rek dinañu la ne ñii ñu am pas-pas la te yaru waaw. léegi ñu gisoon ñu dañ leen nga xam ne moo ndox mi daa mel ni eh, nga xam ne mooy autorité xam defuñu effort wala boog dimbali leen ci ndox ah, ndox bi moom buun moom ku ne ñu ngi ki jàmm day wax lu ko neex même ñoo xam ne amaguñu amaguñu ndox. seen kër yi ñu ngi jonkoon di xaar seen bës buum yëpp dafa mel ni napp buy jóge fële ba pare autorité bi ñuy defal canal yóbbu defal fële kii euh, comme euh, bassin bassin boo xam ne tabaxuñu ko day tuuru kanal bi day tuuru nag di pass léegi loolu suñ ko tuuree kanal bi ndox bi du topp yoonam loolu loolu tax kër yi yëpp day ban léegi soo xoolee ku ñëw fii day foog ndox bi bu taaw bi mooy dugg ki kër gi déedéet ndox bi day day génn ki ball bi day ball donc napp bi ki kanal bi lay jógee mooy kanal bu ñuy defar ki goudron bi di tour depuis ñaari étage ndox boobu la nit yi di subiir fii waaw. mbir hmm? bi ay dix heures et demi man dix heures et demi laa la ko yegg ma daw si. ñëw fekk leen fii ñu tëdd boobu nag sapeur yi ñëw nañu waa policier yi waaw. ah. Macky. ñoom ñaar yëpp. ñoom ñaar yëpp. ce qui est ñoom ñaar yëpp taaw lañu. ki Cheikh. taaw la ki suma frère bi. Nuxa taaw la ki suma frère bu nekk. dëkk ba ñoom ñëpp taaw lañu waaw waaw am na rak am na rak ah waaw dafa dama mel ni suma collègue bi wax na ko fii mbir bi du kër Massa du buun rek mais il faut ñu gëstu ñu xam ne Congo du ñëpp am doole pour mun a évacuer jël camion citerne euh, dindi ndox bi kon nag am na ñoo xam ne moyen bi la am moyen bi tey la bés bi ñëw mais yàgg nañu di évacuer koñ bi yëpp lii la ñuy évacuer ñu force de ndox taabu la ñuy évacuer ak lii di dugal ki kii bi ki napp bi comme lu ma leen ko waxee napp bi day dem ba su guddiloo ngeen dem ngeen dem ba foofu ki foore bi fu muy verser nga xam ne napp boobu moo ne be fi kon nag nañu wutu pexe daaw préfet ñëw na fii di jëm gas gaslu ci kaw ne day defar napp kenn gisu ko day defar bassin kenn gisu ko ren la gën a piir fu mu nekk nii ñu ñëpp mooy lu ma la wax rek ñu ñu ñu ñu ndox ñu ngi jonkoon di xaar waaw. man maa ngi maa ngi tudd Moussa Diatta man maay bàyyiwu Sadia Diatta ki am trente deux trente deux ans non trente six ans borom borom Quincaillerie waaw étudiant étudiant bi e, sama mag bu góor moo ko jur depuis 2014 la am bakam mu ñëw fii si sam si sama loxo waaw bon bon mbir mi ah rek parce que ñaari xale yi presque mun naa xam ne ay taaw lañ si man kenn ki sama taaw kenn ki taawala la si sama mag ah, xam nga rek yàlla moom lu mu dogal kenn mënu si dara dund bi nu ma dundee lii moom métti na trop waaw nga am sa ñaar doom ay taaw yaakaar ci ñoom mu ne mu mel nii ah rek mais sant yàlla la dañ ko gëm yàlla rek hmm? amu non ay salbataire lañ ay salbataire lañ waaw boobu dama liggéey woon foofu lañ ma wooyee ñi ki ñi dañ doon ŋàcc fii ne ñaari néeg yi saal wi lañ njëkk a ŋàcc ba pare ñu dem si seen néeg foofu la affaire bi euh, courant bi foofu la leen maase waaw ah? kër gi depuis samedi waaw depuis samedi buñ ko ŋàccee mu ñëwaat parce que day ball si suuf lay jóge